dañoo def conférence de presse ni askan bi ñun dañoo am ay jafe-jafe jafe-jafe yi ñu am mooy gouvernement bi daf ñoo teg lu diis teg lu diis bi mooy dafa ni yéen man maa koy wax prix bi njëg li waaye nag su ma neexee leneen li def si mburu yëpp maa koy fixé am du ma ko fixé maanaam daal ñu koy jaay nañ ko jaay lu leen neexee ba loolu amee ñu xam ne ñun niveau de vie askan bi metti na lool réew mi ñu ni kon ñun aussi dañ bokk si askan bi naka la ñuy fexee ba aussi njëg bi ñuy liggéey mburu mi nañ koy yokkee ñu def conférence de presse ni gouvernement bi yow gis nga ni yokk na améran yokk na yaa yokk courant bi yaa ko yokk xolam si yaa fexe mu yokk salaire yaa ko yokk yow nga ni léegi nag mburu mi moom fa nga koy yemale fa nga koy yemale ñu ko kon léegi ñun d'accord nañu xam lu bëgg bi ñu defee suñu conférence ñu ko leer nañu dañoo bëgg la nga yokk nga wàññi ko ndaxte da ni yow mburu produit social la maanaam pour askan bi la ñu d'accord si ñu ne lenn mooy suñ njëkk revendication mooy yokk mburu bi mu mënul ñàkk nañu yokk mburu bi wa ilaa nañ def respecté réglementation bi beneen bi suppression lu ñuy wax homologation maanaam la ñu tënk la ñu bëgg mu deñ mooy ñu ni kon en attendant suñu revendication bi mooy suppression TVA bi si courant yi dafa deñ parce que mooy résolution bi mooy tey li gars yi décidé mooy ñuy araftu nag di arte moo tax kon ñun dañoo décidé tey si bis bi tey grève maanaam doon koy tuddee grève mais ñoo moom suñu alal ñoo moom suñu yëf bu ñu neexee tëj bu ñu neexee ubbi dañoo décider nii balaa la 15 janvier bii danañ tëj suñu fuur yi def ko 48 heures du doon nag 48 heures ay renouvelable renouvelable man maanaam répétitif si weeru janvier bi ak si weeru février bi. dama ne pour information bu xam ne ñu ngi alerté état ni ko la mu defal meññee ni leen. 31 décembre 2023 bi maanaam légalement loolu la ñu ñoom xaatim ñoom seen biir ni 31 décembre 2023 droit de douane yi ma leen mayoon danaa ko jëlaat bu ko jëlaatee ma ñëwee mën nañu xëy ni ñoom dañuy yokk farine c'est normal boobaa ma ne état ba nag bu ko defee ñun boulanger yi kon boobaa dañuy gën a dee rek te boobaa nag kon comme combat bi ñuy mënee bon boobaa dana gën a yokk kon nag su bëggee gën a oyofal mbir mi bu mu jéem a sax naan day dindi loolu ça important